lay nuyu nga baal ma tuuti présenté présenté ñu yow yaay euh, man maa ngi tudd Abou Wan euh, ñu ñu gën ma xam ci boyka quoi coach euh, sport de combat la MMA ci la bokk quoi moom la ñu hmm. pratiqué si si salle bi fii nii hmm. waaw bi nga dalee pratiqué sport bi ba léegi yan yan difficulté nga ci am ak lan nga ci jàngee ci expérience boo expérience boo ci am moom peut-être chaque jour da ngay am expérience bu bees ci sport quoi hmm. bon du jaar jaar jaar bu bu métti laa ci am et tout parce que bu fekkee dangaa ngaa jóg pour bëgg benn affaire di ko def pour man du compliqué quoi. parce que saa boo demee di si ut dara xam-xam rek avec plaisir lay nekk quoi doo yëg ne sax euh, yaa ngi yaa yaa ngi yaa ngi dund hmm. bu fekkoon na euh, moo tax euh, ni koy waxatee. óol óol comme óol ba mu fi hmm. ba kii ba xam nga boo ñëwee distance boobu fii ak golf da lay leer daf ko bëgg kon. mënul gisee ni euh, dafa am difficulté wala jafe-jafe pour pratiquer sport bi quoi parce que avant tout benn amour bu muy bu bu benn amour du sport bu mu bëgg a def la. moo tax en général du ma si gis ay jafe-jafe quoi. si hmm. li muy mu def sport de combat. te ku ne xam na ni sport de combat dafa am ay ay risques même ci entraitement yi. ci biir sport beeg yëpp euh, xale yi léegi bari na ñoo xamante ne ay mbëru làmb lañ dañuy pratiquer ci làmb ñi mais comme mel ni Bulldozer xale yi ñu ngi ñëw ci yéen ban message ngay jox mor seen morom yi ñi xam ne dañoo am volume nekk sport bi di bëgg ko bëgg fas yéene ci def carrière euh, ban message nga leen jox. bon comme li ma waxoon óol moom fii njëkk ñëwaa ah, parce que moom déjà yàggu fii sama benn élève moo indi si salle bi moom ba mu ñëwee directement dam ko wax la mooy dëgg bi quoi que Sénégal la ñu nekk que sport surtout genre MMA nekkul fii sport boo xam ne dafa développé trop léegi avantage bi mooy. boo koy pratiquer fii nii mooy déjà di nga ci am benn expérience di compétir fii nii même fekkee amoo si xaalis yaa ngi ci am xam-xam soit da nga koy utiliser si làmb ji wala boo amee chance après nga génn extérieur dem combat bi am foofu ay kii am foofu ay euh, ay titres comme comme nigériens yi camerounais yi ñun man loolu laa gis si si làmb ji quoi parce que ñoom de base ay sportif lañ ba pare ay ay professionnel lañu ñoo si sportif yu gën a dàq entraîner physiquement si Sénégal doo si génn lutteur xam nga léegi ñoom exemple bu ñëwee fii leen da ngay yokk si ñoom mooy li ñu am ba pare loolu ngay loolu ngay évoluer loolu ndànk-ndànk balaa nga ciy yokk leneen. moom ba mu fi ñëwee yàggul presque ay trois semaines loolu la fi ñëw la fi la fi ñëw du ma nekk fii di concentré wu ci affaire yoo xamante ne du ko maîtriser gum te mu am compétition exemple samedi bi ñu jëm nii donc si li mu mën loolu ngay yokk tuuti. voilà man loolu laa loolu laa loolu laa jàpp si diggante mbëri ak euh, MMA bi quoi mooy da ngay entraîner. pour nga évoluer personnellement nga utiliser ko si làmb ji boo amee chance nga utiliser ko si MMA bi tamit comme ay rëg-rëg ay yeneen ak yeneen lutteurs yu si yu si yu bi xam nga ko. waaw xam naa ko. mus ngeen daje wala nga mus ko entraîner wala nga xam ku ko entraîner lan nga xam ci moom. bon parce que doon entraîner mooy ba muy nekk fële euh, euh, nu ñu koy waxee sax. Castor quoi parce que foofu dama fa man maa fa. zone foofu noonu dañ fa doon ñëw hmm. man xam naa leen bu baax quoi. xam naa leen bu baax xam naa tamit euh, moo ko jiitu si MMA bi c'est tout à fait normal même kooku tamit boobu ñëwee si MMA am na ku ko jiitu moom moo gagné kooku. Hmm. léegi moom tamit bu demee tamit indi fulla fay tamit parce que genre MMA loolu quoi nit ki mënoon ëpp expérience sax nga gën ko muus nga gagné ko. Hmm. te ba ñoom en général ñoom ñëpp benn lañ si man quoi. parce que man ñëpp laay ñëpp laay entraîné quoi ñu may ñu nekk ci salle bi que ñu nekk yeneen salle parce que li mu dama dem dama bokk ci Sénégal hmm. kon mbëru ku la seet si rek bëgg a pratiquer sport bi ko mbëru mbëru làmbax ñëpp man souvent loolu laay wax ku ma mos a déglu loolu laay dama naan mbër nit mënu ko génne si MMA. comme exemple bu bëri non non gars dañ leen ëpp mbëri bu ñu moytuwul comme exemple damay gis euh, Bombardier bu demee compétition. ñu naan non lañu mooy tubaab bi affaire yooyu noonu non amul mooy peut-être après lenn mooy am mooy ndax entraînement bi jaaral na jaar na yoon wala jaaru yoon. mais un lutteur bu entraîné normalement dem ci MMA lenn da nga ko mën a ëppale mooy expérience case bi parce que environnement changer tey fu mu musul dem tey bu mu fa tegee mun naa xaw am pression tuuti mais soo géré première euh, minute rek après mun naa bokk facilement. mais loolu loolu su ma bëgg suma su ma naan expérience bi mooy exemple nga nangu daj coono bi Sénégal fii nii mooy commission moom lu bëri sax mais yow da nga naan garaaw maa soxla expérience bi waaye ma dem bokku ci nga dem ñu ne la non benn cinquante mille lañ teg nga dem bëri am expérience élément bi c'est la nga dégg commission bu ñuy tëgg exemple benn dëkk benn Cameroun exemple ñu ne la am na fekk yow yaay génn sa propre moyen passe dem compétir pour am xam-xam bi xam ne après dina dina la fay parce que ku la gisul ngay combat mu mënu la ne kaay ma jox la. mais ci làmb ji actuellement gis nga ku mel ni Bombardier muy pratiquer sport bi di MMA di ci di ci def ay preuve xale bu mel ni Siteu ak yeneen champion yi ne ci làmb bëgg a pratiquer sport bi. boo gisee combat Bombardier bi weesu gis nga ñàkk gi nga xamante ne am na ko euh, Siteu noonu Reug Reug aussi noonu lan nga jàngee ci ñoom ak lan la ñu manqué ñoom xale yooyu. bon su ma loon wax si ñoom ñett. Hmm. dama naan Reug Reug moo si ëpp potentiel pour percer. parce que moom déjà moom premier combat bu ñu def fii nii dama xool parce que maa ngi doon am doute parce que mosuma woon bu def MMA bu jaaroon parce que bombardier kii la fi jëloon quoi mooy waa ju nekkoon Suisse bi. Rocky Balboa te xam naa ne kooku amul niveau boobu noonu. Hmm. léegi Reug Reug dañu ba ma xoolee ku mu doon dajal ki ma xam ne kooku champion la. mu ñëw def performance boobu mais Reug Reug bu continuer entraînement am champion lay nekk ci MMA bi. ñu bëri naa mu non lutteurs yi exemple xam nga parce que noonu lañ mel quoi lu ñu xamul dañ naan wóoru ba tey sax dañ naan wóoru mu dem gañe gañewaat gañewaat dernier combat bi leneen moo ko sonal mooy euh, adversaire yi foofu dañ lay jàng parce que peut peut être tàmmuñu loolu ci ci làmb ñoom dañ lay xam ne kii day songu bu la songee exemple sol yëpp si suuf après combat yow moo tax saa bu rek rek songee rek léegi da koy sol loxo yi aj ko dóor ay coup de

ku préparé commission munoo xam exactement ban potentiel la amoon ci combat boobu noonu quoi parce que kay mu gënoon pare rek ngay wax quoi. ki mais bombardier tamit comme comme combat yëpp ah, man mun naa ñëw une seule stratégie ma song la parce que dafa ñëw song waaye door ko low parce que moo peut-être ak gabarit bi day jàpp ne damay écraser kii waaye bu mooy mooy euh, low kick bi si tànk mooy ku ñu dóor si tànk xaw a tërëf tuuti mu daanu ci kaw mais gauche bombardier bi au moom boo xoolee même si laam yi du ko dóor da koy miime indi droite bu puissant léegi miime boobu noonu nag peut-être adversaire bi xam na ko ci moom xam na ne gauche bi du ñëw mais day def nii pour dóor droite bi moo tax mu teg tag ko droite bi ren mu dóor ko droite bi quoi man ci bopp sama lool laa jàpp ko mais gis gisuma ñoom ñaar seen préparation kon mënuma si percer quoi. ñoom ñooñu ñëpp léegi boo ko commencé di leen wax lan lañ war a gën a mën a yokk bu ñu bëggee def carrière ci sport bi di MMA. bon comme lutteur bu toog quatre ans combat wu tey bu ñëw dañ ko ñëpp dañ ko naan ah saa yi gëj na combat déjà même chose ak da nga gis ko ne champ beneen ba nekk champion ay deux am ci at bi mais ku nekkagul champion dina am ay quatre cinq combats at bi surtout ñoom niveau bu ñu nekk presque chaque deux mois complètement nu mu enchaîné woon presque chaque un mois nga dégg am na combat xaw bu si an deux ans bu degré noonu pour nga téegu du yomb quoi déjà dina am expérience bi dina xam règlement yi surtout règlement yi parce que parfois du ñu xam règlement yi après da ngay mujjee maanu ci yenn yi parce que da ah, lii am na lii am na te loolu wartul nekk ay doute dafa nekk loo xam ne da koy appliquer sans pour autant nga siy réfléchir voilà man loolu laa gis. ni maa lay jaajëfal baax ko ci leeral yu am solo.